jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi fm 97.5 ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi Adama Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi nag tey euh, ci samedi ji dañoo dellu am mbégte ci seen émission pencum réew mi dalal Ansou Sané mi nga xamante ni moom mooy directeur général agence nationale pour la relance des activités en moom la ñu dalal tey fa seeni waxtaan ak moom ci ponk yu baree baree bëri di ñëw euh, invité la tey ci émission pencum réew mi. maa ngi lay gërëm di le sant di nuyu auditeur réew mi FM yëpp. di jaajëfal waa réew mi ci liggéey bu am am solo bi nga xamante rajo dina ko def ci yee ak yee yeete population yi. jërëjëf euh, Ansou saane euh, léegi nag dañu bëgg njëkkee. ci li nga xamante ni moom mooy euh, Covid 19 bi ak euh, li nga xamante ni ni ko état bu Sénégal yore ñenn ñi ñoo ngi ŋàññi état bu Sénégal ne daf cee lajji ak xeex bi nga xamante ni tey moom la ko état bu war état bu Sénégal waroon a xeexee dañu gis ne dafa am ay faay yu baree baree baree bëri yow euh, lan moo ci sa xalaat. waaw maa ngi lay gërëm ci laaj bi. ndax euh, xam nga ni bi mbas bi duggee suñu réew mi ba léegi depuis weeru mars lu bëri la yàq ci ci réew mi euh, mu am impact ju bëri ci wàllum koom-koom bi am ko ci wàllum social bi am ko daanaka ci fànn yi yëpp daanaka réew mi yëpp la la laal réew mu àdduna yëpp ñoo ci toll woon réew mi nekk nag euh, ni feebar bi duggee ci sa biir réew mi da nga doon jël ay mesures pour jéem a fexe ba nooy xeexee ci xeexe xeexee mbas moom mm-hmm. ki nga xam ne nag mooy Sénégal defe naa ne bi mbas mi duggsee ba léegi njiitu réew mi président Macky Sall amoon na ay ndogal yu am am solo yi nga xamante ni jëloon na ko pour fexe ba ni Sénégal di eh, xeexee eh, mbas mi muy ay mesures yoo xamante jëloon nañ ko ci wàllum couvre-feu ci wàllum décréter état d'urgence waaye tamit eh, mu jël ay ndogal yu bëri yoo xamante ne tamit pour suqali pour mën a fexe ba ñu mën a am résilience ci ci ci wàllu ci wàllu woowu demoon na tamit ba ci biir ñëpp gis nañ ne jëla jëloon na solo boo xamante ni ñu ngi koy tuddee programme de la pour la résilience économique et sociale. Mm-hmm. donc mu jagleel ko benn budget bu presque mille milliards. programme boobu tamit secteur yi nga xamante ne ñoom la euh, crise bi gën a laal. donc secteur yooyu secteurs yooyu la programme bi euh, gëstu woon. donc jàppale leen muy secteur de la santé. muy euh, secteur sociaux yi. Euh, ak ceeb bi ndimbal mi nga xamante ni jagle nañ ko population yi. muy secteur wu entreprise yi ndax ñoom tamit loroon nañu bu baax a baax ci ci xeex bi. président jagle leen lu toll presque deux cent milliards. donc euh, ak euh, ay remise fiscale yoo xamante ne nguur gi defoon na ko lu toll presque deux cent cinquante cinq milliards. donc tegal leen tamit ay crédit yoo xamante ne ci banque bi. crédit yoo xamante ne moo doon tax pour di banque yooyu entreprise yooyu daanaka ñu mën a ñu mën a fonctionner. loolu lépp si jubluwoon lu mu si mooy fexe ba. entreprise yooyu ñu sàmm liggéey liggéey yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci seen ci seen kër ndax li nga xamante ne moom mooy euh, emploi dafa soxloon baax a baax a baax président fexe ba donc euh, entreprise yooyu ñu bañ a dàq ay liggéeykat fexe tamit ba seen euh, capacité de production donc mu bañ a am ay loraange yi ëpp bëri donc loolu am na solo parce que boo xoolee dëkk Afrique xam ne ñoo ñu wër boo xoolee réew yu bëri ci Afrique donc euh, jëloon nañu ay mesures dem ba confiner sax seen seen population te accompagner ñu population yi ci pro ci ci programme yi mel yi mel noonu donc loolu dafay wane quelque part ne bu ko Sénégal defee loolu dafay wane ne quelque part président de la République li nga xam ne moom mooy yitte askan wi li nga xam ne moom mooy moom la ñu war a def ba ba ba euh, crise bi nekk na li ko li ko soxla. mais en Ansour Sané euh, wax nga lu am solo xam naa peut-être euh, même diaspora bi aussi jàppale na leen président Macky Sall mais sunu économie réew nii nga xamante ni nii la amee ay jafe-jafe ay problème est-ce que amutoon beneen feem boo xamante ni bu ko gouvernement bi xeexee woon mbas mi économie bi ni mu amee jafe-jafe naa du demee nii bu boobaa. xam nga ci wàllum économie boo ko waxee dinaa ci sawar lool parce que xam nga ni diggante 2012 ba ba tey am na jéego yu bëree bëri yoo xamante ne def nañ ko ci wàllum économie ba nga xamante ne suñu croissance demoon na ba toll presque 6 virgule 8 pour cent donc ñu fexe nañu ba suqali koom-koom bi ba réew mi yëpp dox donc li nga xam ne nag mooy mbas mi donc ba mu ñëwee ci dëkk yi àdduna bi yëpp ñëpp xam nañ ne lu ma def ci loraange ci wàllum économie ba tax na bu président jëlutoon mesures yi nga xam ne moom laa la limal sànq fexe ba jàppale entreprise yi fexe ba jàppale population bi defe naa tey waroon nañ toll foo xamante ne waroon na gën a garaaw may wax ne bi ñu demee ba toll foofu bi ñu xaymaa impact bi nga xam ne crise bi am na ko ci wàllum économie gis nañ ne dellu te ginnaaw lañ doon def parce que dañu du jógee six virgule huit pour cent ba pour cent te bu ñu moyul daañu gën a wàcc suuf looloo tax président mu jàpp ne il faut que ñu créer conditions yi pour ñu suqaliyaat économie fexe ba suñu économie bañ a su suux donc looloo waral keroog mu daal di jël ay dogal ne dañuy leve couvre-feu bi lever état mais est-ce que si aussi déedéet xam nga euh, booy jiite réew mi dafay am li ñuy tuddee information yoo xamante ne da nga koy am te citoyen duñ ko am te booy jiite réew mi dafay am yu bëri yoo xamante ne da nga koy war a sàmm donc muy li ñu li ñu tuddee conciliation ak li li nga xamante ne moom mooy fexe ba ni ngay xeexee euh, mbas bi waaye fexe tamit ba ni ngay fexe ba économie bi koom-koom réew mi maanaam du du du du suufee. Mm-hmm. donc loolu nag ak ak foo ci mënta toll rek ak xibaar yi ñu ciy am ak euh, perspective yi ñu ciy am rek loolooy tax. nga adapté sa décision. ak li la médecin di wax. ak li la médecin di wax. daanaka spécialiste yi ah. te ñëpp xam nañ ne bi euh, mbas mi tàmbalee ba léegi am na kuréel bu am solo bu ñu tuddee comité national de gestion des épidémies daanaka comité boobu mooy xelal président ci li nga xamante ni moom mooy ay ndogal yu muy jël ci wàllum euh, euh, santé bi. donc mu jaarale ko tamit ci wàllum économie. d'accord donc loolu am na solo. d'accord am na solo Ansou Sané mais. Euh, tey gis nañ ne président Macky Sall état d'urgence bi euh, dindi nañ mesures yu bëree baree baree bëri léegi li jaaxal ñu bëree bëri corona bi dafay gën di law ci Sénégal décès yi di gën di am président Macky Sall dindi état d'urgence bi loolu nan nga ko mën a expliquer. waaw xam nga euh, boo bu ñu dégloo ñu ñëpp déglu nañu discours président bu keroog am na lu am solo lu mu wax ne feebar bi am na tolluwaay bu mu am ci ci réew mi. Euh, ba nga xamante ni defe naa ku nekk war nga nekk sa docteur bopp mooy maanaam dafa ñaax nit ñi pour que ku nekk nga mën a def assumer li nga xamante ne moom mooy sa responsabilité individuelle. Mm-hmm. dëgg ak responsabilité collective. mais du démission du euh, du du du démission parce que euh, feebar bi defe naa mesure yi nga xamante ne pré gouvernement bi jëloon na ko depuis le départ tax na ba boo xoolee feebar bi nu mu nu mu lawee ci dëkk bi. daanaka am na doole naam te euh, am na ñoo xam ne ñàkk nañu si seen bakkan ñu ngi leen di jàll seen seen seen njaboot waaye boo ko xaymaa par rapport ak yenn réew mu Afrique. Hmm. nga xayma ko par rapport ak li xew ci àdduna bi da ngay xam ne kon suñu réew mi am nay jéego yu am solo yu mu def ci wàllum fajum euh, euh, jàngoro bi. te jàngoro bi ba mu ñëwee nekk na loo xamante ne kenn xamu ko donc ba mu ñëwee donc ndogal yi ngay jël ca njàlbeen. ak dogal yi ngay jël après. bi jàngoro dugg bu nekk benn xamoo si woon dara ndax sa njëlbeen xamoo woon feebar bi. Mhm. donc il faut nga observer ko. rawatina euh, waa kër docteur ñu observer ko xool ba xam nu muy adapté wu ci réew mi ba maîtriser ko nag donc au fur et à mesure ñu daal di joxe seen seen seen seen seen xel seen seen seen xam-xam président jaar di jël ci ci ci ci ndogal. Mhm. donc loolu am na solo tey boo xoolee suñu taux de létalité. Mhm. moo gën a néewle ci ci Afrique. taux de létalité Afrique toll na ci presque 5 pour cent ñun suñu réew mi ci àdduna bi toll na cinq pour 5 pour cent fii ci Afrique presque daanaka deux pour cent la ñun suñu réew mu ngi pour cent suñu taux de am na solo weesu na 50 pour cent dem na ba 70 pour cent. ñu ngi koy gërëmee suñu waa këru docteur waaye tamit ñu ngi koy gërëmee tamit euh, euh, président ci mesures yi nga xam ne jël na ko léegi li ci des mooy ko feebar bi toog na ñun ñëpp xam nañ ne feebar bi toog na ci dëkk bi donc dañuy ñaax askan wi rek pour ku nekk. na sàmm boppam sàmm njabootam sàmm askan bi sàmm sa sa bopp nag mooy lan mooy fexe ba digle yi nga xam ne moom la waa code docteur wax ñi di ko topp mooy maanaam ñi takk ñi takk maxi mooy maanaam ñi respecter distanciation sociale mooy maanaam fexe ba li nga xam ne moom mooy ay rassemblement yu bëri ñu koy ñu ñu ñu ñu koy wàññi. parce que nag toll nañ diggante boo xamante ne mënuñu toog suñu kër président dafa bañoon ne day day day confiné wax naa la sànq ne ay dëkk bëri confiné nañ te président confiné wul. donc président dafa ne na ñëpp jël seen responsabilité fexe ba ni ñuy euh, ni ñuy xeexee mbas bi donc loolu am na solo def naa loolu bu ñu ko defee daañu mën a liggéey daañu mën a def suñuy yëngu-yëngu daañu reprendre activité économique yi te ñu fexe ba mbas bi du am du am doole ci kaw bu ñu respecté euh, digle yi nga xam ne yooyu la kaw waa kër docteur. d'accord jërëjëf euh, Ansou Sané kon yow daal danga nga bokk si ñi nga xam ne dañoo gëm ne économie réew. su demee ba nga xamante ni am nay jafe-jafe bu boobaa xeex mbas dafay jafe am na ñoo xamante ni loolu lañ gëm. waa xam nga ñun suñu économie boo ko xoolee suñu tolluwaayu économie boo ko xoolee lu informel bi moo ci ëpp lu toll ni quatre-vingt-dix pour cent euh, sénégalais yi ñu ci bëre ci secteur informel bi lañu nekk ba tax na am na loo xam ne boo ko defee ci wàllum économie bi di nga créer ay loraange yu bëri. donc loolu am loolu loolu am na solo ba pare dañoo nekk ci diggante boo xam ne ñu ngi tabax benn économie boo xam ne mu ngi jublu ci li nga xam ne moom mooy moom lañ tuddee émergence donc soo su ko defee dafa am conciliation boo xam ne war nga ko amal ci li nga xamante ne moom mooy wàllum faj mi ak ci li nga xam ne moom mooy suqali économie bi donc loolu am na solo waaye ci kaw loolu yëpp citoyen bu nekk war naa fexe ba sàmm boppam sàmm askan wi sàmm ay ay jegenaaloom ci kaw respect. Euh, mesures yi nga xam ne euh, euh, dig digg nañ ko. donc loolu loolu loolu loolu am na solo may wax ne toll nañu ci diggante bi président wax na ni daañu reprend activité économique waaye dinañu loolu dinañ ko def ci kaw benn programme boo xamante ne programme de relance de l'économie la te programme boobu président am na lu am solo loo xam ne wax nañ ko. mooy que problème dinañ ko dina sukkandiku ci suñu suñu suñ suñ suñu koom-koom te ñun suñu koom-koom mooy lan mooy mbay mi mbay mi am na solo te président wax na que. il faut ñu fexe ba ñu delloo ci mbay mi. est mbay mi. donc euh, état Sénégal ñëpp xam nañ ne jéego euh, jéego yu mu def ci wàllum mbay depuis 2012 ba léegi kenn du ko naatable. donc am na investissement yu bëree bëri bëri yoo xamante ni def nañ ko li nga xam ne mooy campagne wu agricole bu ren bi presque lu toll ni 60 milliards dinañ ko ci ci dugal boo xoolee 2012 ba léegi am nay programme autosuffisance yu bëri yoo xam ne def nañ ko tax na ba ñu am ay ay ay jéego yu am solo ci wàllum béyum ceeb. te boo xoolee tey daanaka lu tuutee ñu desee pour ñu am autosuffisance alimentaire jugee nañu ci production bu 400000 tonnes ba production boo xamante ne tey weesu na un un un million de tonnes boo xoolee secteurs yi yëpp donc tey am na ci ay jéego yu bëri ñoo xam ne def nañu sol def def def nañ ko ci donc aménagement yi tey la tey euh, am nañ ci ay résultats yu bëri yoo xam ne def nañ ko pour jàpp jàppale euh, paysans yi. semence yi semence yi léegi kenn jooyatul semence qualité bu njëkk xam nañ xam nga ni bu campagne musaana jot prise euh, béykat yi dañ doon jooy ne seen semence yi doyul ba pare du qualité. waaye loolu yëpp état fexe na ba yokku euh, yokku euh, qualité semence bi donc intrant yi nga xam ne tam dañ koy jox euh, paysans yi donc baykat yi yokk nañ ko boole ci matériel agricole gis nga ne at bu ne lu weesu mille tracteurs ñu dugal ko ci ci ci wàllum mbay bi donc effort yooyu yëpp tax na ba tey macha allah suñu économie suñu croissance économique mbay bi am na wàllu bu am solo boo xam ne daf ko ci joué ci wàllum produit intérieur brut donc loolu nekk na effort yoo xam ne quand mu ngi fii mën nañ ko mën nañ ko séddee. boo demee ci boo demee ci Saint-Louis vallée nga xam ne SAED mu ngi koy aménagé vallée ñu ngi am bu ñu am boo demee ci Kolda vallée Anambé tey Sodagri mu ngi fay def liggéey bu am solo boo demee ci dëkk yi yëpp gis nga ne euh, état mu ngi accompagner euh, producteurs yi te état mu ngi dugal xaalis ju bëri pour mu mën a fexe ba producteurs yi mën a euh, am ay amélioration ci seen liggéey. jërëjëf directeur général Ansou Sané mbokk moom la invité. moom moo jiite euh, agence nationale euh, pour la relance des activités en Casamance léegi euh, sànq wax nga loo am solo jëm ci mbiru agriculture léegi dañu gis ne coronavirus bi bi mu ñëwee réew mu nekk dafa tal boppam te Sénégal ñun gis nañ ne lu bëree bari dañ ko doon jéggaane ji bitim réew am na sax engrais boo xamante ne bitim réew la doon jóge doon ñëw si réew mi est-ce que mënuñoo jàngee ci coronavirus. que Sénégal war na gën a mën a am ab taxawaay ci bay di dunde comme ni ko président Macky Sall waxe woon consommer local ndax gis nga fi mu ne nii Union européenne rek euh, booleel nañ ñu si ñi nga xamante ni tey mënuñu faa dugg loolu est-ce que wanewut wane wanewut ne Sénégal war na gën a mën a fonk li nga xam ne moom bu si sukkandikoo mën na am développement wala li muy jéggaane du bari euh, muy mbay mi. waaw defe naa euh, corona bi am na loo xamante ne ay jàngat yu bëri maanaam yoo xamante mën nañ koo def ci ci ci ci ci mbas mi. comme ndax euh, gis nañ ne bi feebar bi duggee ci àdduna bi balaa may ñëw sax si sa si sa laaj mi boo xoolee ci àdduna bi feebar bi tax na ba réew mi bëri gis ne euh, dañoo war a fexe ba génn ci dépendance yi ñu doon am ci yenn ci yenn produit produit wala ci yenn biens yi. naa la jox benn exemple gisoon nañu fii li ñu tuddoon la guerre diplomatique sur les max fii ci àdduna bi ay max yoo xamante ne Chine ko doon defar ci benn jamono donc mu ko doon euh, tas ci ci ci réew mi yépp mm-hmm. ñu gis ne ay avion doon na évacuer doon na doon na transporté ay ay ay ay max yu nga xamante ne France la waroon dem waa États-Unis wala république tchèque ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi téye avion yooyu. donc loolu tax na ba réew yu bëri ñu gis ne ci wàllu yu bëri dañu war a fexe ba ñi am li nga xamante ne moom mooy sécurité mooy maanaam ñi fexe ba lu ñu soxla ñuy fexe ba ñu koy produire seen dëkk. donc boo jëlee Sénégal daanaka ñun tamit ci situation lañu toll. boo jëlee soo jëlee déet euh, mooy li président waxoon rek. keroog. mu ñu fexe ba ñu relancer agriculture bi waaye ci kaw ne. mais wax mais ñëw leen wax mais ñëw leen ci kaw ci kaw ne ñi faratal li nga xam ne moom mooy consommer local. defe naa loolu lu am solo la parce que consommer local ci wax la yem. parce que déet parce que consommer local concept la boo xam ne at yëpp ñu ngi ko doon pro promouvoir soo gisee prési euh, président fexe ba. créer condition yi pour que agriculture ñi mën a yokk production yi mun a fexe ba ceeb bi nga xam ne moom la ñuy dundee ñu koy bayee fii ñi bañ a dépendre ci Inde wala ci Vietnam donc c'est parce que gis na ne pertement buñ ci am moo gën a am solo ngeen li nga xam ne dañ ko ci am. boo xoolee li li ñuy perte ci milliards. mais mais mais mais ensuite tamit kon di nga wax ne état bu Sénégal war na mën a dooleel secteur privé am ba secteur privé am doole ba nga xamante ni tey ëllëg si biir li ñuy jëli ñeneen ñu ñu koy liggéeyal ñu am ñu xarañ ñoo xamante ni euh, dooleel secteur privé am ba ba ñu mën ko liggéey ci réew mi. waaw defe naa loolu xëy na beneen beneen laajte la boo xamante ne euh, li nga xam ne moom mooy accompagnement secteur euh, secteur privé loolu am na solo. am na solo naam parce que tamit loolu boo ko jëlee di nga gis ne am nay jéego yu bëri yoo xam ne def nañ ko parce que secteur privé euh, bu Sénégal léegi macha allah euh, defe naa lépp yembul waaye am na effort yu bëri yoo xamante ne gouvernement def na ko pour renforcer capacité secteur privé parce que secteur privé Sénégal plus problème mooy lan mooy financement bi. Hmm. moo nekkoon ay ay ay problème mooy organisation secteur bi mooy tamit environnement des affaires bi. parce que loolu tamit am na solo. environnement des affaires mooy fexe ba naka la économie bi mu munee nekk économie bu compétitif ba nga xamante ne entreprise yi nga xamante ne dañuy yëngu ci économie bi entreprise dañuy mën a gis seen bopp ci ci ci ci ci ci secteur boobu donc loolu tamit am nay jéego yu bëri yoo xamante def nañ ko à travers le programme de réforme de l'environnement des affaires et la compétitive xam nga ni euh, am na ay jéego yu bëri yoo xam ne def nañ ko ba tey booy tijji sa entreprise la nga doon sonn bu njëkk bu doo sonn sonnatoo ko léegi léegi entreprise di nga ko tijji en 48 heures léegi euh, capital social bi nga xamante ne daan ko laaj booy tijji entreprise léegi laaj laaj laaj tudd na ko donc euh, euh, procédure am courant am ndox. pour euh, pour mën a tijji sa sa entreprise parce que xam nga ne loolu lu am solo la. donc loolu yëpp léegi amatul problème ndax au niveau de la Sénélec am na benn euh, centre guichet unique boo xam ne amal nañ ko ba nga xamante ne problème yooyu yëpp nañ dina am accompagnement bi tamit bi war état teg na fi ay jumtuwaay yoo xamante ni ñu ngi accompagner yi euh, dinaa tuddee FONGIP dinaa tuddee FONSIS donc BND tamit mu ngi fii di accompagner entreprise yi li nga xamante ne moom mooy ADP tamit mu ngi fii di accompagner entreprise li am solo mooy que. Euh, su ma ñëwee ci laaj bi rek mooy que consommer local bi ñun suñu wàllu bopp état dafay fexe ba créer conditions yi impulser production bi pour que production bi mën a nekk production bu tax bu mën a doy nit waaye li ci des nag askan wi ci seen bopp ñoom ñoo war a approprier euh, notion boobu mooy ñun ñoo war a fexe ba. Euh, con consommer local boobu mu nekk li nga xamante ne réalité la ci ci terrain mooy maanaam tey bu weer bi dee man su may jënd ceeb. au ma jënd saaku ceeb boo xamante ne Inde la jógee wala Vietnam ma jënd ceeb wàllu bi am na solo duulin bi am na duulin boo xam ne dañ ko fiy produire mu am solo donc loolu yëpp defe naa bu ñu ko defee nank-nank daañu dem ba atteindre autosuffisance alimentaire mm-hmm. parce que nag am na ay effort yoo xam ne def nañ ko ci wàllum production riz donc fa mu fa production riz fa mu nekkoon ay at léegi defe naa nekkatu fa donc léegi ceebu waalo am na fi ceeb bi mbay bëri na fi ba nga xamante ne macha allah te léegi sénégalais. ñu ngi seetlu ne macha allah ci wàllu woowu sénégalais yaa ngi commencé dellu siyaat ci li nga xam ne moom mooy consommer local donc amuñu lu dul fii daal. donc gën a ñaax nit ñi ñu gën a jublu ci loolu. léegi léegi euh, lu jëm ci mbirum euh, infrastructure jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci Sénégal lan lañ si mën a jàngee ci coronavirus bi. waaw def léegi daal loolu tamit beneen euh, jàngat la donc bi nga xam ne mën nañ ko def ci wàllum santé bi parce que ñëpp xam nañ ne suñu système de santé. Euh, naam ay ay jéego yu bëri def nañ ko ci waaye am na tamit loo xamante ne euh, mën nañ koo nemmeeku comme ay sooxe donc euh, sooxe yi ci wàllum personnel de santé bi defe naa ne souvent dañuy faral di wax ne docteurs yi doyul askan wi donc ci wàllum tamit lalu hôpital yi. donc defe naa gis nañ ne te feebar wane na ko wane na ne am na ay manquement yoo xam ne wane na ko dina ci wàllum ci wàllum ci wàllum amélioration euh, plateau technique yi hmm. waaw defe naa tamit ci côté boobu c'est vrai ay manquement la mais bu ñuy waxal te waxal yàlla rek war nañu seede président ne bu mu ñëwee ba léegi am nay effort yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci secteur santé bi. mais en dinaa la dinaa la wax discours am bi président si discours bi dafa wax ne. dina recruter euh, cinq cent médecins ak euh, mille agent professionnels de la santé mais est-ce que euh, état comme ni muy demee ndax gouvernement état bi fi jóge woon ñoom dañu waxoon ne chaque année danañ recruter mille agents de la santé am lu bari lu si sooxe woon bu ñu sukkandikoo ci Mballo Dia Thiam mi jiite syndicat unique des travailleurs de la santé mais président Macky Sall lii mu wax nii tey ne dina recruter mille cinq cent emploi euh, mille cinq cent agents euh, est-ce que jàpp nga ne yeexut depuis ka mu toog si njiit ba réew mi ba tey nii. ndax mu la woon a prévoir. waa def naa Baalu Diatiam yaa ko tudd ci ci mbir bi muy ki jiite seen syndicat ànd gësëm bi. def naa man déglu naa ko. Euh, te li ma si mën a jàpp mooy que rafetlu na mesure bi. c'est vrai que nee na xëy na mën nañ ko yokk. Mhm. mais bu fekkee promesse la mën naa la ne promesse bi ñu ngi jublu ci réalisation ndax conseil des ministre bi weesu bu barki yi démb déglu déglu nga communiqué bi président joxe na digal ministre de la fonction publique ak ministre de la santé ak ministre du budget pour que ni mën a jublu ci ci ci ci recrutement ci ci ci ci lu gaaw te man euh, li ma la mën a séddee mooy que ci mille 2015 diggante 2014 ak 2015. état recruté woon na lu toll mille agents de santé loolu man mun naa ko séddee ndax ci dama jamono yooyu maa ngi nekkoon conseil technique ministre de la fonction publique bu woon mooy Viviane Bampassi ci at boobu recruté woon nañu mille agent de de de de de de santé c'est pour dire que am na ay efforts yoo xam ne euh, li nga xam ne président junj na ko fii nekkul loo xam ne guléet la amoon na fii ci wàllu mais dafa fekk ne tolluwaayu population bi. ak tolluwaay euh, euh, euh, bëgg-bëgg askan wi ci wàllum santé moo rëy ba nga xamante ne souvent boo defee effort yi souvent doo doo doo ko gis donc laaj na pour ñu koy améliorer te président jël na engagement ne diggante deux mille vingt ba deux mille vingt quatre am na programme bu am solo boo xamante dina ko jagleel wàllum santé bi pour améliorer plateau technique yi pour renforcer vraiment suñu système de de santé déjà gis nga ne am na lopitaan yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy tabax. boo demee Kédougou boo demee Sédhiou boo demee Kaffrine boo demee ba Touba am na euh, hôpital yoo xamante ni ñu ngi koy livré dans le cadre du du du plan plan Sénégal émergent te président sant na gouvernement pour mu présenter ko benn plan boo xam ne dina ko appliquer ba 2024 pour yokk euh, jumtuwaay ci wàllum santé waaye renforce tamit euh, personnel personnel de santé personnel de santé boo ko waxee mooy docteurs yi mooy agent agent de santé donc defe naa loolu ay effort la yoo xamante ne donc gouvernement moo ngi koy def mais am na solo ñi koy ñi koy wane tamit waaw jërëjëf euh, Ansou Sané euh, yow yaa jiite euh, ANRAC léegi li nga xamante ni tey moom mooy gestion Covid 19 bi laaj bi ma la si laaj en ñu bari dañuy ŋàññi niñ ko gérer lépp ndax nag gis nañ si ñu baree bari noté nañ si ay rëq-rëq yu baree bari soo xoolee tey ñenn ñi ne nañ dañoo yeex a tëj aéroport yi boo xoolee tey 1000 milliards yi. 69 milliards yi ñu jëndee euh, ceeb ak euh, dund gi am na fu baree bari ñoo xamante ni jotagu jotuñu ndax Mansour fay sax moom ministre Mansour Faye wax na ne am nañ ay ñoo xamante ni tey ay partenaire la ñoon ay ay fournisseurs yoo xam ne euh, ñoom ñoo yeex a indi marché bi liñ leen li liñ waroon a joxe si ceeb wala si diwlin wala si suukar ñu gis na foofu am na ay rëq-rëq est-ce que force Covid 19 bii ñu fi teg jàpp nga ne 1000 milliards yi. dina jaar si yoon maanaam mu leer aussi xam nga ni muñ leen a jox 1000 milliards kese te duñ leen wax dëgg yàlla du ngeen leeralal Sénégal yi fal ngeen dugal 1000 euh, milliards yi ndax jàpp nga ne 1000 milliards yi euh, président dina ko leeral après Sénégal yi dërëm bu nekk fan la dugg. waaw def naa bu fekkee leer leer lu leer lañ bëgg ci mbir mi. déjà ci wàllum gestion Covid bi gouvernement dafa mës a wax ne communication bu transparente lay joxe. mooy maanaam lépp loo xamante ne moo ngi ci wàllum gestion euh, euh, feebar bi dina ko wax askan wi boo xoolee tamit euh, financement yi nga xam ne moom moo am ci force Covid 19 bi defe naa semaine bi weesu ci biir semaine bi ministre la ministre de du budget et des finances taxaw na ci kanam député yi wax leen tolluwaayu dépense yi nga xamante ne moom la ñu def boobu ba léegi ci mille milliare yooyu. ki nga xam ne tamit mooy ministre la santé moom i tamit présenté na benn bilan ci li nga xam ne moom lañ ko jagleeloon ci ci ci ci wàll woowu ci naka la ko dépensé ba dégg nañ ne presque lu toll ni cinquante milliards dépensé nañ ko ak trois milliards yoo xam ne moom lañ jagleeloon prime prime prime de motivation yi donc defe naa loolu transparence la ak de transparence la boo xamante ne waaw Mansour Faye tamit defe naa dem na le point ñu ngi koy suivre ba tey dëgg nañu ne presque lu toll euh, presque une centaine de communes rek moo ci des te defe naa gouvernement président joxe na ndigal yi pour que au plus tard le 15 juillet donc euh, ndimbal mi mën a distribution yi mën a jeex mais nag il faut ñu xam ne yombul nag parce que ay milliers de tonnes ceeb la ay milliers de tonnes denrées alimentaires la yoo xam ne ñu ngi ko war a yóbbu presque cinq cent cinquante communes yi nga xam ne moom moo nekk ci fii ci Sénégal ak situation taw bi ak difficulté d'accès yi nga xam ne xëy na dinañ ko mën a am ci yenn kii yi donc ak lu muy laaj ci logistique lu toll lu weesu presque quatre millions quatre mille euh, camions yoo xam ne gouvernement bi mobilisé na ko pour du euh, jagleel ko opération yi te nekk na opération boo xamante ne mosuñu ko amal ci ñu donc lu bees la ci ci si ci réunion daanaka donc faw ñu nangu ne léegi-léegi mu am ay impair mais lu am solo. mooy que euh, waa ministère du développement communautaire ñu ngi jël matuwaay yépp ñu ngi fexe ba ndimbal bi mu mën a yegg sa euh, sa euh, population yi donc li ci des mooy que am nañu ab diir boo xamante ne mooy le 15 juillet ñu am yaakaar ne incha allah fii boobu mbooleem population sénégalaise ak mbooleem commune yi daa ñu mën a jot seen seen wàll. d'accord mais 69 milliards yooyu. dañu wax ne moom Mansour Faye ndax xam ne si loo xamante ni moom responsabilité am la ndax su dee tey dafa bëri ay fournisseurs yoo xamante ne dañoo taxaw kenn ku nekk bëgg a gañe marché bi nga am ñoo ko jox su dee am na retard ci fournisseurs yooyu loolu photo photo ministre bi la te ñi nit ñu bari li ñu gis tamit mooy am na ñoo xamante ne dañ leen yóbbul ceeb euh, du am yeneen pad yi moo xam macaron la doon moo xam moo xam vermicelle loolu tamit euh, ñu baree bare dañ ko si nemmeeku mais tamit yow. ne lan ngay tontu ñi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ne. 69 euh, milliards yi. manoon nañ fexe jox ko nit ñi xaalis. ndax kenn ku nekk ak yitte bi nga am. mais yow lan moo ci sa xalaat. waa defe naa li ngay wax ni yëpp euh, ay perception la rek mooy mooy maanaam nit ku nekk rek ci sa tolluwaay ci sa gis-gis ci ci mbir mi waaye li ma ci mën a jàpp rek mooy que euh, li nga xam ne moom la nguur gi jël mooy maanaam jënd ceeb bi jënd euh, daara ba pare jagleel ko population yi loolu choix boo xamante ne moom la nguur gi jël lu tax nag ñu jël ko man mënuma la ko wax. parce que nekkuma ministère u développement communautaire defe naa euh, kii nga xam ne mooy ministre bi am na communication boo xam ne def nañ ko ci ci mbir mi pour expliquer lan moo waral choix boobu. mais man sama wàll bopp am naa ci sama gis-gis. donc ni ko Sénégalais yi amee man jàpp naa ne tey euh, Sénégal xëy na boo gisee nit ñi di wax ne mën nañu yónnee ay ay ay wari wala def ko ay Orange Money donc euh, te ñu jàpp ne am na réew yu bëri yoo xam ne def nañ ko kon lu tax Sénégal def ko. man mën naa am raison bi war a tax de pour man sama gis-gis. ba gouvernement bi euh, jël solution boobu. parce que tey ñun tey boo xoolee seen suñu réewam am na loo xam ne moom la ñu tuddee registre national unique mooy benn euh, liste boo xamante ne mbooleem sénégalais yi nga xam ne euh, dañoo néewle doole donc dañ leen cee enregistré pour ñuy mën a bénéficier. li nga xam ne moom mooy programme social bu président jagleel askan woowu mooy bourse sociale familiale registre national unique boobu ñu ngi koy tabax en 2013. boo demee tey Afrique am na réew yu bëri yoo xam ne amuñu ko daanaka Sénégal rek moo mën a moo moo moo mën a euh, wax ne moom moo am cartographie situation sociale askan donc à travers ce registre national unique là donc loolu soo ko amee donc war ngaa mën a ne opération bu mel nii. war nga ko mën a organiser ni ko ministère ni ko ni ko nguur gi nekkee di organiser. Hmm. donc loolu am loolu am na solo parce que réew mi nga xam ne amuñu ko donc ñoom ñoo ñoom il fallait que ñu opter pour beneen système mooy système transfert cash yi ngay yi ngay dégg noonu mais ñun am nañu liste am nañu registre registre boobu buñ ñu ko bu ko bu ko xaymaa ci njëlbéen presque lu toll mille sénégalais ñoo ci nekkoon président ne na ngeen na ngeen yokk. donc mooy liste additive yi nga xam ne yokk nañ ko mu dem mu ba un million président ne na ngeen yokkaat cent mille cent mille personnes mooy ñi nga xam ne mooy mooy ñi nga xam ne am nañu amee nañu ay laago mooy ay Sénégal yoo xamante ne euh, ay ay réfugié lañu wala am nañ yenn jafe-jafe ba tey boo xoolee registre national unique boobu mu ngi toll ci presque un million cent mille personnes. Euh, li nga xam ne nag moom la ñu nemmeeku ci mbir mi mooy yéexaay bi nee la opération fa mu toll ak euh, tolluwaay bu mu am. ak suñu mi tamit soriwaay yi yenn communes yi sorier donc tax na ba mën nañu comprendre yenn yéex yéex yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ci ci ci kii bi mais li am solo mooy que tey boo doxee boo demee ci réew mi communes yu bëri am na donc communes yi nga xam ne ñoom ñoo desee am euh, euh, seen seen seen seen seen seen dimbal ñoo gën a néew la ñi nga xam ne jot nañ ko donc ça veut dire ñu ngi def ay efforts. ça veut dire que nguur gi donc mu ngi sàmmante ak ak ak akom te nee naa la am na diir boo xam ne président jox na ko ministère développement communautaire pour que balaa le 15 juillet lépp pare. Ah. donc defe naa le 15 juillet soreetul. Euh, li ma ci mën a tontu rek mooy que ñun dañu nekk ci euh, état. état dafa organisé wu. Hmm. donc euh, ci organisation boobu ku nekk am nga ci sa wàll. nguur gi am na wàllum président la république am na wàllum gouvernement bi am na ci wàllum donc askan wi tamit am na ci wàllum. te feebar bi ñëpp wax nañ ne feebar bi léegi dafa nekk ci dimension communautaire donc réponse bi nga xam ne moom lañ ko war a indil réponse bi dafa war a nekk une réponse communautaire donc loolu am na solo état lu mu war a def mooy jël ay matuwaay pour accompagner organiser nit ñi lu mu war a def mooy jël ay matuwaay pour faj euh, euh, pour faj nit ñi lu mu war a def mooy jël ay matuwaay pour fexe ba économie bañ sooxee donc ak yeneen matuwaay yoo xam ne mu war na ko jël état lu mu war a def tamit mooy communiquer de façon transparente su ñu waxee ne on doit vivre avec le virus mooy toll nañ foo xamante ne ñu tëj nit ñi maanaam dañu confiner nit ñi dañu bàyyi nit ñi nañu may économie mu daw nit ñi nekk ci seen activité waaye nag te loolu mooy le sens de la responsabilité individuelle kenn ku ne. da nga war a jël sa responsabilité xam ne yow yaa war a sàmm sa bopp boo sàmmee sa bopp sa njaboot nga sàmm boo sàmmee sa njaboot sa communauté nga sàmm boo sàmmee sa communauté sa dëkk nga nga sàmm. d'accord donc loolu am na solo. Uh-huh. donc relâchement bi nga wax noonu. effectivement ñun ñëpp seetlu nañ ko ñëpp nañ ko mais nag il faut ñu continuer di wax askan wi que am na ñu bëri ñoo xam ne gëmuñu sax ne feebar ban loolu am na fii loolu nag du responsabilité président. mais te moo nekk bés bu ne est-ce que du responsable la. responsabilité ministre bi. non moo ne communication ministre bi moo ne communication bi ñu ngi communiqué te communiquer communication bi dañ koy adapté ci ci ci jamono dañ koy adapté ci situation bu nekk donc mu li ma la waxoon sànq rek communication bu transparente la nguur bi opté pour def. communication bu transparente mooy bës bu nekk nga dëgg bulletin boo xamante ne ministère la santé mu ngi koy joxe ci tolluwaay ci tolluwaay feebar bës bu nekk dëgg ay sport publicitaire nit ñi yow yaa ngi nii bés bu nekk yaa yéen a koy wax seen seen rajo donc li ci des nag nit ñi ñoo mën a ñoo war a mën a euh, euh, approprier wu discours bi fexe ba si suñu si suñu activité si suñu euh, jëflante yi donc ñu fexe ba sàmmante ak digle yooyu donc loolu rek mooy réponse communautaire léegi nag am na lu am solo loo xam ne bëgg naa ko ci wax parce que ci biir riposte communautaire boobu donc wax nañ ne leader d'opinion yi mooy bajjanu gox yi mooy ñi nga xam ne ay ay ay mbër lañu mooy ñi nga xam ne peut-être ay yàlla may na lañ seen wàll nit ñi dëgg leen ni ñi respecté leen ñaax nañu ñi ñooñu pour ñu jublu ci ci ci ci cadre kii euh, ci cadre riposte bi. defe naa tamit loolu bunt la boo xam ne nguur gi gouvernement bi ministère de la santé ubbil na ko pour que acteurs yi ñu mën a jàppale euh, gouvernement bi ci ci communication bi ci di yeete di yee euh, askan wi. donc loolu lu am solo la il faut faudrait que ñooñu ñu jouer seen rôle ci ci wàllu moom mooy maanaam ci seen gox ci seen dëkk ak euh, ak ak seen dëkkuwaay il faudrait que ñoom ñi bañ a xaar ba nguur gi fekk leen. donc il faut que ñooñu leader d'opinion yooyu ñu jóg ànd ak seen maire yi ànd ak seen population ñi mën a xool discours bu adapté bi nga xamante ne parce que koñ bu nekk ak réalité donc discours bu ne dafa war a méngoo ak réalité askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci koñ boobu te loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci koñ bi ñoom ñoo mën a xam ban genre discours moom moo baax ci ci koñ boobu ban genre réalité la ñu am ñu mën a fexe ba méngale discours bi wala comportement yi par rapport donc loolu am na solo. jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM 97 point 5 euh, tey seen émission pencum réew mi mbokk yi daal di euh, invité Ansou Sané mi nga xamante ni moom mooy directeur général agence nationale pour la relance des activités en Casamance. léegi une minute ah dama lay poser benn question mais nga tontu ci une rek su ko defee ñu jàll si li nga xamante ne mooy kuréel gi nga jiite ni ANRAC léegi Ansou Sané Sénégal dafa am problème Euh, ci côté économie kon ni ko réew yépp amee ndax Covid 19 bi bëri na ay réew yoo xamante ni indil dafa ay tolof tolof président Macky Sall nee na euh, boo xoolee ren sax euh, vacances gouvernementales yi dañ ko annulé nee na dañ takk ceinture yi ngir sunu économie bi nga xamante ni tey mën nañoo wax ne dafa ja am jafe-jafe yu métti métti mu jugaat léegi est-ce que tey sunu ministère yu bëri yi train de vie de l'État buñ ko wàññi woon wàññi. ministères yi yenn institutions yi bu si mel ni conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales ak au conseil dialogue social ñenn ñi dañuy wax ne institution yooyu institution la yoo xam ne bu ñu ko fi jëlee woon tey xaalis bu bari lay jural Sénégal te njariñ li bariwul ñenn ñi noonu la ñu gisee lan moo ci sax xalaat. waaw man defe naa ne am na loo xamante ne dama koy dëgg ci discours ci jamono ji xam ne. pour man euh, amul benn rapport ak euh, ak ak xeex xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex mbas mi parce que defe naa comme ni ma ko waxee euh, li nga xam ne moom moo am Sénégal bëri ay dëkk yoo xamante ne fii ci Afrique wala même ba ci àdduna bi amuñu amu amu amu fa mooy lan mooy bi mbas bi duggee président jël nag ay mesures président mu mobilisé na lépp loo xamante ne moom la xeex bi laajoon ci moyen ci jumtuwaay. donc amuñu woon benn problème ci wàllu nee la sànq am nay dëkk yu yoo xam ne ci àdduna bi dañoo jël ay mesures de confinement. waaw mais ñenn ñi dañoo jàpp bu buñ fi jëlee. maa ngi ñëw fi jëloon institution yi. maa ngi ñëw mën nañu gaaw relance économique déet maa jëlee leen fii wala bàyyi leen fi jotewul dara ak relance économique. ah bon ndax euh, li nee la balaa Covid bi di ñëw ñëpp mën nañ seede ne suñu koom-koom réewam dafa nekkoon ci raay ra raay yu am solo. mais dafa dafa dafa déraillé instant bi mais déraillement boobu. waaw donc déraillement boobu fépp lañ ko nemmeeku. mais solution nee naa la nee euh, FMI génnee na benn rapport boo xamante ne nee na au niveau mondial dafay am récession bu presque cinq points ci ci ci ci àdduna bi maanaam tey dëkk yi yépp am jafe-jafe yooyu. donc nekkul ne euh, institution yi moo moo moo moo moo moo waral loraange yooyu donc ci ay difficultés conjoncturelles la yoo xamante ne donc économie yëpp toll. te pour relancer économie pour relancer économie bi est-ce solution. relancer économie bi solution dina fi institution yi. waaw déet relancer ci lañ toll donc ci lañ toll moo tax président ne ci diggante juróom-benn weer yi nga xam ne moom moo ñu séparé ak ak jeexantalu deux mille vingt faw ñu takku ñu liggéey parce ñëpp seede nañ ne économistes yi dañoo experts yi dañoo wax ne suñu jëlul ay matuwaay rek. Mm-hmm. taux bu nga xamante ne mu fa lañ toll nii te un pour cent. daañu dem ba wàcc. waaw ah, loolu am na solo ah, ñu daal di euh, ñëw ci li nga xamante ni mooy mooy euh, ANRAD bi nga xamante ni moom nga moom nga jiite mu nekk kuréel boo xamante ni tey dañ ko samp euh, maanaam agence nationale pour la relance des activités en Casamance. Casamance lan la fa président Macky Sall def. bi mu toogee ci boppu bopp mu Sénégal ba léegi ni ñu mën a xam ne ndax xam nga kuréel gi teg fi kuréel yomb na mais vraiment jox ay jumtukaay kuréel ba nga xamante ni tey dana relancer activités yi en Casamance lan la président Macky Sall relancer Casamance en waaw question bi nag euh, am na solo trop parce que nag euh, euh, c'est vrai Casamance ñëpp xam nañ ne balaa président Macky Sall ñëw. nekkoon na région boo xamante ne xeex bi tax na ba mu dellu gannaaw xeex bi euh, jur na fa ay loraange yu bëri ba li bëri taxoon na euh, mu nekk région boo xamante ne jafe-jafe yi bëri nañu ci wàllum euh, désenclavement jafe-jafe yi amoon na ci wàllum am jàmm donc jafe-jafe yi amoon na tamit ci wàllum suqali économie région boobu te région la boo xamante ne macha allah ay potentialité yu bëri la am ba nga xamante ne yooyu potentialité tey buñ ko bu ñu créé condition yi ba potentiel yooyu ñu exploité ko rek xëy na euh, émergence bi nga xamante ne ñi ngi koy ñi ngi koy am. xëy na war nañ sax do am ay jéego yu am am am que ci wàllum yëpp ressource ressource boo mën a xalaat ci àdduna bi rek. demee Casamance fekk waaye xeex bi taxoon na ba loolu yëpp mënutoon am. nga xamante ne moom la président def ba mu ñëwee en 2012 il faut. il faut que ñu il faut il faut il faut que ñu souligner ko. parce que balaa 2012 ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitoon ci ci ci ci ci réew mi dañ doon wax ne tant que jàmm amul Casamance du ñu développer région bi mooy maanaam investissement yi war duñ ko def parce que du ñu investir xeex bi yàq investissement yi. loolu moo nekkoon position bi nga xamante ne moo amoon mais président Macky Sall ba mu ñëwee bëgg bu mu bëgg région li nga xam ne xam na ko ne bu buñ ko defee ci région bi buñ ko poussé Sénégal lay dem ci kanam dafa changer doxalin boobu dafa changer gis-gis ne man damay sukkandiku ci développement pour andi jàmm mooy lan soo gisee nit ñi dañuy jël ay fetal di dugg ci àll bi c'est parce que seen koom-koom réew mi région bi moo taxawal c'est parce que amuñu xëy. c'est parce que potentialité région yi la ñu. dañ leen boddi woon voilà dañ leen boddi woon mais bu ñu fexee ba loolu yëpp am daañu mën a indi jàmm ci ci kaw. léegi lu président donc ci biir loolu nag mu fexe ba def ay jéego ba nga xamante tey dal am na kaat ci Casamance loolu ñëpp see ñëpp seede nañ ko tey alhamdulilah rabbil alamin Casamance am na li nga xam ne moom lañ tuddee akkan ñaareel jafe-jafe bi nga xamante ne sax nit ñi jàpp nañ te xëy na bokk na ci li indi xeex bi mooy. enclavé bi Casamance enclavé ba waa Casamance seen bopp dañ doon gis ne ñoom bokkuñu ci seen bokkuñu ci Sénégal parce que pour pour jot pour jot yenn région Sénégal yi da nga amoon ay jafe-jafe pour jot leen tout ça yooyu donc mooy leen enclavement président def na ba fexe na ba véritablement Casamance ñu désenclavé ko ci ci jaww ji ci suuf si ak si askan tey boo xoolee euh, infrastructure yi donc macha allah ci wàllum yëpp am na. ci wàllu terrasse boo xoolee tey. Euh, infrastructure terrestre yi macha allah tey Casamance di nga jugee Ziguinchor ci euh, ndekkee Ziguinchor añee Dakar pont bi nga xam ne nit ñi ci lañ doon am ay jafe-jafe di ci passé ay ay ay ay waxtu dem sax ay ay ay ay fan ci camion yi nga xam ne euh, par exemple dañ doon indi évacuer produit donc pont boobu président fexe na ba mu tabax ko daaw ba ñu inauguré ko ba nga xamante ne mooy pont Farafeñe mooy pont Sénégal euh, Sénégal bi ba nga xamante ne tey boo ñëwee ba tollu Farafeñe donc coono yi nga doon am. doo doo ko am ma ñëw ci wàllum ci wàllum euh, euh, mari infra désenclavement maritime donc foofu tamit gis nañ ne tey président jagleel la ñaari bateau yoo xamante ne moom mooy transporter population yi diggante Dakar ak Ziguinchor ba pare mu affrété benn bateau boo xamante ne. dafay transporter uniquement marchandises yi Casamance parce que tamit loolu jafe-jafe la woon donc mango yi nga xam ne doon nañ ko produire mat yi nga xam ne doon nañ ko produire tool yi nga xam ne doon nañ ko produire ak li bëri loo xam ne doon nañ ko produire dañ doon am jafe-jafe pour évacuer ko ci Dakar wala ci yenn centre commercial yi donc mu créer benn bato indi benn bato boo xamante ne ñu ngi koy tuddee la joogee donc bateau boobu liggéeyam moom mooy transporter ay produits ay ay ay produits. tey jii bati boobu moo nekk di assurer transport li nga xam ne moom mooy anacarde bi la noix d'anacarde donc loolu tamit am na am na solo yemul foofu mu draguer li nga xam ne moom mooy fleuve Casamance fleuve Casamance bi xam ngoon xam xam nga ni xóotuloon ba nga xamante ne yenn bateau yi daañu noonu mën a accéder ci port Ziguinchor donc président bu mu ñëwee en 2016 ba 2017 donc fexe na ba ñu draguer euh, euh, géeju euh, Casamance ba nga xamante ne tey bateau yu mag yi donc bu leen neexee dañuy ñëw. accosté fii nga xam ne moom mooy port Ziguinchor te mesure boobu bu ñu ko jëlee fekk na balaa boobu li nga xam ne moom mooy noix d'anacarde bu Ziguinchor dañ ko doon jëlee Ziguinchor Casamance yóbbu ko ba pooru Banj Banjul pour mu mën a jot yenn port yi pour mu mën a jot yenn port adduna ginnaaw dragué woon nañu nag euh, fleuve Casamance président dàqal loolu parce que loolu économie Casamance la doon rey parce que boo jëlee sa noix d'anacarde nga yóbbu ko Banjul donc presque pertement lay doon ci sa économie xam nga loolu donc mu jàpp ne mu jël dogal ne léegi nag conditions yi mat na pour que po euh, port Ziguinchor bateau yi di fa mën a ñëw di fa jël li nga xam ne moom mooy anacar te loolu seet nañu ko bu ñu ko defee ba léegi lu toll pre lu weesu presque cinquante milliards dina dugg ci ci ci économie te na des te dina des ci Casamance ay doomu Casamance dinañ ko njëriñoo te créer na mesure woo tax na ba ñu créé ay emploi que tey boo demee port Ziguinchor port baa emploi bëri créer nañ ko parce que noix d'anacarde bi fa lay jaar te yamu ci nee na ba tey noix d'anacarde bi bu ñu ko jëlee yóbbu ko donc dañ koy trans exporté yóbbu ko Inde wala yóbbu ko Vietnam foofu lañ koy jël transformé ko ñëw dañu ko jaayaat ñun suñu Sénégal donc nañu fexe ba créer ay unité de transformation pour kër produit yi ñu koy ñu koy ñu ñu koy transformer sur place te gis nga fan ni DER am na jéego yi am solo yoo xam ne def def na koy parce que mu ngi accompagner produit mu ngi investir lu weesu presque douze milliards pour ñu mën a créer condition yi bref li ma ci bëgg a wax mooy que. président développement Casamance daf ko teg ci yoon. parce que xam nga développement dafa am ay sart yoo xamante ne tant que matalewoo ko rek doo mën a am développement bokk na ci sart yooyu mooy jàmm bokk na ci sart yooyu mooy tali bokk na ci sart yooyu mooy courant bu doy parce que courant bu doyul taxaw. fu courant doy na bi doy na parce que Ziguinchor soo demee ñun Ziguinchor macha allah jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon am bu njëkk ba Ziguinchor jafe-jafe yi amuñu ko parce que ñun dañoo am benn centrale bu mag boo xamante ne mu ngi Ziguinchor ñu tuddee ko centrale de Poudre président dugal na ci en 2014 ba 2015 lu toll 15 8 euh, milliards pour ñu renforcer capacité de production euh, énergie ba nga xamante ne courant doy na fexe na ba euh, désenclavement am te li ma fàttee ci désenclavement mooy tey. Casamance bés bu yàlla sax lu toll ni quatre dina def navette ñaar ci suba ñaar ci avion eh, ñaar ñaar ci ngoon comme ñaari compagnie am am am fa muy lii di Air Sénégal ak ak Transair te loolu lu am solo la yaatal nañu aéroport Ziguinchor yaatal ñu aéroport yaatal nañu tamit aéroport Cap aéroport Cap tey ay charter daañu jugee France wàcc fa directement loolu bokk na ci li nga xam ne tey dafa suqali tourisme te turin tamit président jël na ci mesure bu am solo boo xamante ne nee na fii ak fukki at képp koo xamante ne tabax nga hôtel nga tabax restaurant nga tabax recette hôtelier yow lii nga xam ne moom mooy ay charge sociale wala ay charge fiscale jég maanaam nguur gi jégal na la ko jégal na la ko loolu yëpp pour fexe ba ñuy suqali tourisme donc loolu am na solo. jërëjëf euh, Anso Sané mbokk yi moom moo jiitee euh, agence nationale pour la relance des activités en Casamance léegi euh, ANRAC yéen lan ngeen def yow lan nga def ci liggéey bi la président Macky Sall sant pour nga relancer les activités en Casamance. waaw balaa may ñëw ci liggéey bi nga xam ne moom laa def di ma may tuuti ma fàttalil auditeurs yi li nga xam ne moom mooy mission ANRAC parce que dafa am solo ñi koy ñi koy wax souvent. c'est vrai que du ñu am souvent temps pour euh, communiquer euh, ANRAC dafay kuréel boo xam ne ñu ngi koy samp depuis 2004 ginnaaw bi nga xamante ne nguur gi dafa xaatimoon ay accord de paix ak euh, MFDC donc ñi samp ko nag pour fexe ba accompagner dynamique de paix bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko en Casamance depuis depuis depuis 2004 fexe ba fexe ba ñi nga xam ne ay daw laxu lañu. Mm-hmm. ñi nga xam ne xeex bi xëy na laal na leen. Mm-hmm. ñu jàppale leen. parce que xam nga ni xeex bi tax na ba ñu bëri génn nañu génnoon nañu Casamance daw nekk ci yenn euh, yenn régions yi daw nekk sax ay Gambie wala ay Guinée-Bissau ñooñu nag suñu liggéey mooy jàppale leen fexe ba. indiwaat leen andi andiwaat leen fii ci ci ci Casamance. suñu liggéey tamit mooy que ci jamono yooyu euh, nguur gi bu mu xaatimee accord yooyu amoon na ay partenaires yu bëri yoo xamante ne dañu pare woon pour accompagner gunge nguur gi pour mu. fexe ba développer Casamance donc suñu liggéey mooy que euh, jamono euh, temps yooyu euh, fexe ba assurer li nga xam ne moom la ñu tuddee coordination de ces interventions pour bañ jaxasoo bi am ci ci ci ci ci liggéey bi donc tey man bi ma bi ma jëlee ANRAC 2017 la woon maa ngi ciy profité ci sant président Macky ci qualité bi nga xam ne def na ma ko ginnaaw bu ma tabee ci ci ci kaw kër gi Euh, fekkoon naa nag euh, ànd rek mu am foo xamante ne jaaroon na fa. mooy jaaroon na fa ci ay ay ay ay ay ngëneel mu jaar fa ci ay jafe-jafe mu ñëw nag tomb ci jafe-jafe yooyu ndax de façon générale. bi ginnaaw bi nguur gi déroulé programme bu mag bi nga xamante ni ñu ngi koy tuddee programme de relance des activités économiques sociales ak te partenaires yi ma tuddoon sànq jàppale ko ci ginnaaw bi programme bi bu jeexee woon donc après agence bi amoon na ay jafe-jafe yoo xamante ne amoon na ko euh, ci wàllum euh, koom ci wàllum koom euh, ba nga xamante ne souvent lu mu doon am ci subvention état da ko doon jagleel fonctionnement fonctionnement am daanaka ba nga xamante ne li nga xamante ne moom mooy ambition Euh, dañoo nemmeekoon ne agence bi amoon na ay jafe-jafe pour pour pour pour accomplir ko man nag bi ma ñëwee sama objectif mooy lan mooy restructurer fexe ba agence bi euh, fexe ba amaat viabilité am donc wàññi yenn euh, yenn charge yi nga xamante ne daanaka doon na tax ba agence bi du doon liggéey liggéeyam na mu waree fexe ba dindi charge yooyu. donc muy liggéey boo xamante ne bu yombul bu métti la woon donc yombuloon euh, waaye yàlla dimbal nañu ba euh, ci diggante ñaari at diggante 2017 ba deux 2018 jàpp 2019 ba liggéey boobu tey yemb na ba nga xamante ne tey macha allah suñu tolluwaayu charge yi donc vraiment fex na mais mais ANRAC est-ce que tey ANRAC euh, tey mission état bu Sénégal moo ko si moo ko si gunge est-ce que seen mission dëgg dëgg dëgg ak li tax ngeen mën a liggéey ANRAC est-ce que loolu am na xaalis boobu. waaw non moom laa lay wax noonu c'est-à-dire que xam nga xaalis bu ñu la joxoon xaalis àdduna bi yëpp boo ko planifié nu mu waree wala bu fekkee yow lañ nga ciy jublu méngool ak la la la nga war a def xaalis boobu xam nga ni euh, sa objectif doo ko atteindre mooy li ma la wax sànq rek mooy fexe ba restructurer ba nga xamante ne lépp lu ñëw rek daañ ko mën a. Euh, dugal ci li nga xam ne moom mooy suñu suñu mission loolu def ko donc euh, am na tamit lu bëri loo ay textes yu bëri yoo xamante ne Euh, gis nañ ne dafa dafa dafa méngóo ak suñu ak jamono ak tolluwaayu Casamance tey ak tolluwaayu ànd ak tey donc textes yooyu tamit fexe nañu tamit ba ñuy fexe ba méngale ko ak euh, tolluwaayu Casamance parce que Casamance bu 2004 ak Casamance bu léegi nee naa lu du benn donc bu njëkk ba dimension sécuritaire bi moo ëppoon solo parce que xeex bi méttiwoon na wala ñu ngi jugewoon ci xeex bi il fallait ñi ñu accompagner waaye léegi dimension économique bi. nguuru Macky Sall ngu dimension économique moo gën a am solo yenn considération parce que nee naa sànq macha allah boo demee Casamance dal am na fa donc bu dal amee léegi nag amul lu dul tal développement économique. ci loolu lañ toll. d'accord donc te loolu ñu ngi def suñu liggéey parce que euh, nag euh, am na ñaari euh, fànn yoo xamante ne mën naa ci sukkandiku pour ne la ñu ngi ci ci ci liggéey boobu tey boo xoolee ak li président def lépp tey. vraiment comme ni ma ko waxee économie baa ngi naat donc la ci des mooy accompagner la des mooy fexe ba créer ay unité de transformation ay usines tey bu usines yi taxawee Casamance rek produit daañu ko mën a transformer te bu bu ko transformer dafay créer emploi dafay créer valeur ajouté te loolu lañu nekk li def parce que ñu ngi am benn lëkkaloo bu ñu am ak APIX mhm. ak seen CNDT mooy commission nationale du dialogue du territoire te sama mag di euh, le ministre d'état Benoît Sambou jiite ko donc dañoo am benn lëkkaloo bu am solo pour créer benn plateforme industrielle plateforme bi dafa am solo xam nga ni tey soo buggee créer entreprise fii ci suñu réewam noo def nga jaar APIX pour yenn formalité mm-hmm. donc ñun tey dañoo jàpp ne Casamance tollu diggante boo xamante ne ku bëgg a créer entreprise waroo am jafe-jafe naan naan il faut nga ñëw Dakar pour ñëw am formalité bi donc lépp loo xamante ne APIX Dakar war na la ko jox rek war nañ war yow. yow opérateur économique war nga ko am. te loolu ANRAL mu ngi ciy dox ak ak APIX ak CNDT parce que am nañu benn suñu benn bâtiment mooy suñu siège boo xam ne ab euh, moom la ñu am nañu loo xamante ne moom lañu war a jagleel plateforme boobu. danañ ko créer ba nga xamante ne bépp offre de service boo xamante ne opérateur économique wala nit bëgg na tabax entreprise wala industrie bëgg na ko rek soxla na ko rek bu ñëwee ci plateforme dina ko am. te plateforme moom dina tax ba tamit li nga xam ne moom mooy diaspora Casamance parce que tey diaspora Casamance dafa am solo tey fépp foo dem ci àdduna macha allah di nga fa fekk diaspora Casamance te diaspora bi Casamance yi tey tey toll na foo xamante ne dafay bëgg investir mooy maanaam investir ci koom Casamance donc ñu liggéey ak ñooñu. man def naa ay mission yu bëri dem Europe dem fekk leen donc pare nañu tey pour accompagner développement économique de la Casamance te plateforme moom liggéeyam tamit mooy fexe ba gunge leen wan leen bunt yi nga xam ne yooyu la ñu war a jaar pour mën a pour pour pour mën a investir donc defe naa loolu am na solo may terminer ci côté boobu ci wàllum agropole ak euh, sud bu Casamance xaw ma da dégg na ko ñu koy wax. donc loolu tamit nekk na programme bu am solo boo xam ne ñu ngi ciy liggéey ak ministère industrie ak euh, li xam ne moom mooy ONUD yi te euh, semaines yi weesu président joxe na instruction pour ak agropole ñi mun ko amal agropole boobu mooy lan mooy boo demee ci diwaanu Adéane. Hmm. daañu fa tabax benn plateforme boo xamante ne képp koo xamante ne bëgg nga tabaxal une unité de transformation plateforme boobu dina la jox conditions yi pour que ñu mën a transformer euh, mango bi xam nga tey Casamance bokk na ci première région productrice de de de mango mooy première région produ euh, exportatrice d'anacarde donc mango bi presque cinquante pour cent mango Sénégal Casamance lay lay lay lay bàyyeekoo lu toll ni quatre vingt dix pour cent production anacarde Casamance lay bàyyeekoo mais comme ni ma ko waxee production yooyu souvent dañ koy yóbbu jàllale ko yóbbu ko Europe. léegi nag président dafa ne il faut que ñu créer agropole boobu pour que ñu mën a transformer sur place. donc bu ko transformer lu pre lu toll presque cent cinquante mille emplois dinañ ko mën a créer. donc pour wane ne tey toll nañu diggante boo xam te économie bi moo nekk di am doole te loolu président moo nekk di jël ay mesures pour accompagner donc ñun tey suñu liggéey mooy accompagner loolu yëpp te ñu ngi liggéey ak ak acteurs pour mën a amal projet projet yooyu. Euh, jërëjëf euh, Ansou Sané léegi fi koy jeexalee rek ndax waxtu wi dab nañu mooy dañu gis ne. Euh, am na élection yu fi jaar euh, dañ leen a gañe gañe gu méttee métti yéen waa APR wala yéen waa benn bokk yaakaar fi nga xam ne moom mooy Casamance Ousmane Sonko jaar fa ni mu leen moxoñee noonu euh, lan moo ko waral ak ndax jàppoon ngeen ne tey bu élection locale ñëwaatoon tey ndax Ousmane Sonko du leen def loolu. waaw loolu am na loo xam ne nag i faut ñu leeral ko parce que Ousmane Sonko gañewul Casamance yëpp Casamance ñetti région la si Sédhiou Ziguinchor ak Kolda. boo jëlee Kolda Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné boo jëlee Sédhiou Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné fi ñu lajjee rek mooy région de de Ziguinchor te loolu euh, defe naa ne euh, boo jëlee élection yi depuis 2014 élection yu bëri amal nañ ko fii ci réew si ñu réew mi Benno Bokk Yaakaar gagné même élection législative yi 2000 2017 yi ñun ñoo ko ñun ñoo ko gagné Ziguinchor xëy na élection législative yi 2019 yi rek la ñu ñàkkoon. te loolu dafa amoon nu mu nu mu nu mu demee. mais kuy doog bi ñëw politique def leen noonu kuy doog bi ñëw ci terrain bi. waaw non c'est-à-dire que euh, comme ni ma la ko waxee euh, moom cette élection boobu du nekkuloon élection mu njëkk parce que laata loolu amoon na élection locale amoon na élection législative donc amoon na référendum. te loolu yëpp ñun gisoon nañ taxawaayam ci ci ci biir loolu donc élection législative gañoon nañ ko référendum gañoo nañ ko donc élection les présidentielles rek lañ ñàkkoon te loolu am na lu ko waral. lu ko waral waaw loolu nag loolu nag dinaa ci sawar ndoor pour tontu leen li ko waral ñun dañoo bu élection weesu weesu ñun toog nañ suñu biir euh, xëyma élection yi te jàpp nañ ne ñaar xëy na moo war a tax ba ñu mën a euh, expliquer un peu defet bi nga xam ne am nañ ko fii ci Casamance benn bi mooy. ñëpp xam nañ ne élection présidentielle nu mu mel ci ci ci ci population yi donc dafa am solo ba nga xamante ne souvent bu doom benn koñ wala doom benn dëkk présenté rek souvent dafay am benn sentiment de solidarité mooy maanaam askan bi nga xam ne foofu la euh, bàyyeekoo foofu la soxee askan woowu souvent dañuy dañuy dañ koy dañ koy jàppale parce que fierté la ne ah sama doom de présenté wu na ci élection présidentielle. donc defe naa euh, ki nga xam ne mooy sama candidat président Macky Sall. sama président Casamance ñoom du ñu am candidat def defal nag ki nga xam ne mooy président Macky Sall ñëpp gis nañ ne Fatick ak maatam kenn naatable ne ñoom ci gànnaaw quatre-vingt-quatre quatre-vingt-dix-neuf pour cent daanaka la la fay gagné parce que lan la seen doom la donc ñoom ñoo koy njëkk fal laata yeneen région région fal ko Idrissa Seck tamit jazalika saa yu Moussa présenté woo dina ñàkk fépp sauf sauf région de Thiès mi nga xam ne foofu la jugee euh, mu am loolu li nga xam ne def na ko fa ci wàllum euh, liggéeyam donc loolu ab la boo xamante ne il faut ñu jël ko en compte parce que suñu suñu sociologie réew moo mel noonu donc souvent bu nit ki boo bokkee ak nit ki. donc ci wàll yëpp souvent bu la laajee dara rek da ngay da da da ko koy da nga ko da nga koy fekk donc loolu facteur la bu am solo la donc deuxième facteur bi ñu jàpp ne na moo mën a expliquer défaite bi ñun gis nañ ne population euh, Casamance yi vraiment dañoo gërëm donc président Macky Sall ci lépp li nga xamante ne def na ko ci wàllum yoon yi ci wàllum jàmm ji ci wàllum suqali économique Casamance mais foofu laay ñëwee mais gis nañ ne Euh, am na lu des xëy na lu des lu des loolu moo war a expliquer loolu li des li mooy fexe ba programme yi nga xam ne président yóbbu na ko Casamance pour ñu créer ay emploi programme yooyu war nañu fexe ba programme yooyu mu gaaw a commencer liggéey pour que jeunes ci seen bopp. parce que élection yi. jeunes yi dañoo yeewoon rawatina fii ci Casamance lu ëpp ci électorat dañoo nemmeeku ne ci jeunes yi la jógee te jeunes yooyu xëy na dafa am loo xamante ne dañ ko dañ dafa am lu ñu garder ci wàllum xëy bi nga xam ne peut-être gisuñu ay résultats yi gaaw yoo xam ne amoon nañ ko fa xëy na looloo tax ba jeunes yi am lu ñëw moo tax ñu ngi gaawantu ñu ngi accompagner pour que li nga xamante ne def na ko lu pare lu programme agropole donc programme yooyu defe naa bu amee donc euh, jeunes yëpp daañu kii seen bopp te defe naa mm. loolu su ko defee daañu mën a rectifier euh, sant di la gërëm. di la gërëm Abdou Khadre. jërëjëf euh, Ansou Sané mbokk moom moo jiite agence nationale pour la relance des activités en Casamance moom la ñu invité woon seen émission pencum réew mi Abdou Khadre moo nekkoon ci kàddu gi Adama si wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.